jërë ngeen jëf ñu ànd demandoo ci li gën fës ci ëttu yëglekaay yi Sud lañ koy doori fësal ca xëtam mu njëkk Amadou Mame Diop di président assemblée nationale journal ba di xamle ni loi d'amnistie bi président Macky Sall bëgg jëmal ci dëkk bii di Sénégal ñu koy effacer lépp lu fi xewoon li ko dale 1 février ba février bi ñu génn loi boobu nag ma ngay daagu jëm fële ci assemblée nationale ñoom député yi di teewal askanu Sénégal fas moom président de la république Macky Sall nag soobu na ca mbir ma bu baax a baax fas yéene voté loi d'amnistie bi nga xam ni mooy effacé lépp lu xewoon ci dëkk bi di Sénégal diw ñaaw téef li ko dalee 2021 ba 2024 bi ñu nekkandi waral ci bésu tey bii la commission des lois la conférence des présidents war amal ay réunion yu am solo ngir lu gën a ba ci leader politique bii di Ousmane Sonko ba tax na nag journal ba di xamle ni digganteem Ousmane Sonko ndaxte du ko effacé benn yoon Amnesty International yëkkati kàddoom di ñaawlu nag di naqarlu bu baax a baax loi d'amnistie bi nga xam ne fas yéene nañ koo voté ci dëkk bi di Sénégal ma ngay xam le ni jékkul jaaduwul ndax li nga xam ne am na fi ci at yi ñu génn dañ ko war a leeral ba mu leer naan ñi la leneen di fi am l'enquête ma nga naan ñu ma ci rend Sonko son éligibilité di xam ne ni ginnaaw loi d'amnistie bi ñu fas yéene voté nag fële ci na nationale buñ ca jógee moom leader politique bi di Ousmane Sonko day dikkaat yi ko doon ko ko toppee dañ koy raxas ba mu seet wecc yi docteur Khomeche ba di professeur en droit public yëkkati kàddoom ca journal ba ma nga naan nag voté loi d'amnistie ci dëkk bii di Sénégal teewul ñoom ñi a topp ba léegi ñu leen teg leen ay daan yi nga xam ne méngoo bu baax a baax nag Thierno Alassane Sall moom tamit ba futu ca Vox Populi ma nga naan nga xam ne bëgg nañ ko voté nag ci dëkk bii di Sénégal méngoowul ak yoon ndax buñ ko defee mel nañi dañoo rayaat ñaareel bi yoon ñoom xale yi nga xam ni ñoo ñàkkoon seen i bakkan yi yu doy waar moom Thierno Alassane Sall gën a biral kàddoom ca journal ba ma nga naan c'est un autre crime maanaam beneen crime bu gën a ñaaw bu gën a bu nga xam ni état bu Sénégal mi ngi koy jëmmal nag ginnaaw bu mu bëggee voté loi d'amnistie bu nga xam ni mooy effacer lépp lu fi xewoon ci at yi ñu génn l'évidence moom tamit dem loi si bii la àddu jëmalee ma nga xam ne que ni société civile politique bu Sénégal yëkkati nañ seen kàddu xam ne que ni ànd ñu ci benn yoon dañoo opposé seen veto di xam ne ni duñ mës a ànd benn yoon te ñuy voté loi d'amnistie fii ci Sénégal xam jot na fee am dañoo war a situer à cent pour cent les responsabilités wante nag journal ba di xam le ni moom président de la république Macky Sall na ginnaaw na mu bëgg a doxalee daan na activer ay député fële ci assemblée nationale ngir ñu taxaw voté ko ginnaaw majorité ba nga xam ni moo ko féetewoo bu baax a baax bés bi le jour samp ab laaj jëmale ci dem ni d'amnistie bii ñu fas yéene voté journal ba nga naan a kii profit la projet maanaam ci dëgg-dëgg loi d'amnistie bii ana kan la gën a yitteel ndax président Macky Sall la ak i ñoñam ak di tiiñal di leen ko lépp ci dëkk bii di Sénégal diir bi nga xam ne jiite nañ ko wala Ousmane Sonko ak ñi ñoom ginnaaw bu leen jàppee def ci kaso bi gàll ci seenu ndodd ay tuuma yu bëree bëri Walf Quotidien ma nga naan ñu moom président la république Macky Sall ak ñi ñoom nag mën nañoo amnistie fii ci Sénégal ba seet wet yi defar ni booy jàpp ni lépp jaar na yoon wante mbir ma mën naa gàkk bu baax a baax nag fële ci diwaanu CPI nekk fa nga xam ne ay plainte yu bëree bëri ma nga fa di fa xaar ñi di autorité yu Sénégal ginnaaw 12 yi nga xam ni jiite nañ ko dëkk bii di Sénégal ak ñaawteef yu bëree bëri yi nga xam ni ñi ngi leen koy tuuma tuumaal ñu teg ko askanu Sénégal l'observateur moom ma nga naan ñu le texte de tous les dangers maanaam lu loi d'amnistie bi ci Sénégal gàkk-gàkk mënu ko weesu ginnaaw li nga xam ne askanu jot na ko dund di jafe-jafe ñu bëgg koo jëmmal effacé ba mu set wecc yi furaas daal wax dëgg lépp loo xam ne amoon na fi ba tax na journal ba jàpp ni lii nag du def lenn dudul gàkkal justice bu Sénégal xañ ko également mu def liggéeyam la turbine ma ngi ko duppee naan amnistie kel hontu maanaam li gàcce mënu koo weesu jafe yi nga xam ne askanu dund nañ ko ab diir ay métit yoo xam ne foo ko dàkk weesu na ko niki tey jii ñu bëgg a jëmmal amnistie ci dëkk bii di Sénégal effacé lépp loo xam ne xewoon na fi ba tax na nag journal ba jàpp ni moom Ndeye Mbili di président de la république Macky Sall tànk yi muy doxee lam ci jublu du lenn dul bëgg sang ay ñoñam raxas leen ba du set wecc yi lépp loo xam ne tuumaa nañ leen ko lu ci mel ni recruter ay nervi ak lu nu mel ñu dal ci kaw askanu Sénégal mu dindi ko ba mu set wecc laataa mu fiy jógee bu ko defee bu ëllëgee kenn du leen ci dara yoor yoor moom tamit président Sall la fësal ci xëtta mu njëkk journal baa nga naan gënnaaw bu mu violé article vingt sept de la constitution moom président Sall nag jamono ji ñu toll ci dilatoire la nekk maanaam di wër-wërlu ak askanu Sénégal di leen jéem a teg lëndëm pousse pion teg pion lànk ni di organiser élection présidentielle yu atum 2024 ñu ni déetuwaay mu gën a am fit gën a dem ca njombaxtal ga ni day voté loi d'amnistie bu nga xam ni day effacer lépp lu fi xewoon li ko dale premier février 2021 ba 25 février 2024 ñu effacer lépp loo xam ni xewoon na fi di aw ñaawteef pouvoir comme opposition ñoom ñëpp bénéficié wu ci l'info ma nga àddu jëmale ci datu élection présidentielle yu atum yi ñu dëgmal journal ba di xam ne ni jamono ji nag datu le 2 juin moo gën a nekk en place maanaam moo gën a yem ngir ñu yóbbu ci élection yi nga xam ni askan wi ñu ngi koy xaarandi ndax bu ñu ñoom ñi demoon ca dialogue national ba doon amal fële ca diwaanu Diamniadio kàddu yi nga xam ne yëkkati nañ ko ña xam ne ni jamono ji ñoom chrétiens yi nekk ci carême musulmans yi dëgmal koor juin 2024 ginnaaw bu ñu ko formé le 25 février passé le réveil fësal ca xëtt mu njëkk soxna si di maire Amidia ab diir bu yàgg yàgg ju teeku ci kaso bi te prison bu camp bu liberté 6 journal ba di xam ne ni nag danañ koy accorder une liberté provisoire maanaam génne nañ ko ci kaso bi placé ko sous contrôle judiciaire bàyyi ko mu dellu ca njabootam ginnaaw bañ koy toppee force spéciale ak lu ni mel moom ndaw si di maire Amidia di àndandooru leader bii di Ousmane Sonko jëm ci wàllum politique direct news fësal ca xëtt mu njëkk campagne aérien bii di Air Sénégal journal ba nga naan nga toog naan Sénégal am na campagne de transport aérien bu tudd Air Sénégal gàcce mënu ko weesu nee na yiraa ngay campagne ba foo ko dàkk weesu na ko ñetti fan yàllaa ngi nii passager yi nga xam ni ñoo war a joge Sénégal dem Paris war a jaar ci campagne de transport aérien bi di Air Sénégal mënuñoo fexe ba dem ay jafe-jafe ba bëccëg mbir ma demul dikkul tàkkul fayul mu nekk nag difficulté yu bëree bëri yu xam ni Arana journal ba di leen laaj bu baax a baax ana milliards yi nga xam ni génn nañ ko dindi ko ay avions yu bëree bëri jagleel leen ko ngir ngeen am service bu mucc ayib fan ngeen ko dugal ba saa su ne rek ngeen nekk ci jafe-jafe yu bëree bëri ma jeexale ko ca wàllum sport ba tribune sport fësal ca xëttam mu njëkk équipe nationale bu Sénégal di xam ne ni dëgmal nag ñaari match amical yu am solo niki match bi ñu dëgmal le 22 ak le 26 ñu war a jàmmarloo ak Gabon ginnaaw loolu waa Benin fële ci diwaanu France ginnaaw bañ leen éliminé ca coupe d'Afrique Afrique des Nations stade fësal ca xëtam mu njëkk la Ligue des champion européenne di xam ne ni ci bésu tey bi nag leen fas yéene door le huitième de finale retour Bayern de Munich Lazio de Rome dooroon ko ca aller ba 1 bi à 0 fas yéene recevoir ci stade am ñoom ñii di les italiens ca beneen côté ba ñuy di waa Paris Saint-Germain bu Kylian Mbappé ginnaaw bu gagné bi à 0 seen terrain ñu nga ca Espagne ca stade jàngeen jëf jàmm ak jàmm